kona ka fole kan Ayo, an ya bin da Ayo, muna na ka fole ayo e kona ka fole ayo mami na na ka Ayo, kan cilin hawa jallale Ayo, ka fole mu kan lemo ganci ina nimbara ba ke mero eh, fekk nañ leen fi yéen a ngi égal mbalit bi tey si bési set setal bii nii yooyee kan man maay Babou Gueye Babou Gueye yow depuis suba ñaata trip nga def. bi mooy suma ñetteeli trip maa ngi dugg si ñeneenteel bi nii. ban jafe-jafe ngeen am ci uh, Buuba Mbalit. parce que nit ñi dañ ko fi teg bàyyi leen ko fi ndax yéen amu leen jafe-jafe ci loolu ñeneen yi defuñ ko si saako dañ ko tuur. dañ ko tuur si suuf ñu ñëw buub ko sotti ci kaw moto bi. loolu jafe-jafe la de defe naa. waaw soo métti na kay. mais uh, naka nga gisee seet seetal bi tey. da da tane mooy ne uh, this time gars def nañ ko ci bags. loolu moo ci tane waaye you can see suñ leverees yi KMC ñoom ñooy def liggéey bi ak uh, ndimbal bu am ci security services ñoom ñoo génn in order past am na youth yoo xam ne génn nañ trop uh, of which uh, that mobilization that side also was very good but in other sides nobody can ñëwut understand so even nit ñu ko yaakaaree ñëwuñ so di nga gis ne fu mu nekk nii ñii ñooy liggéey fu mu nekk a joxe instruction ne gars yi day no close dañu na ñu jox li ñu yokkal leen mu nekk on uh, overtime for them for today and tomorrow su ko defee ñu claim balit yi nekk fii yëpp waaw hopefully tey am naa yaakaar for my manager ne dinañ jeexal at least yaakaar nañ ne dinañ ko jeexal fii balaa guddi ban aide nga am pour euh, nit nit ñi because tey dafa mel ni am na jafe-jafe yu set setalkat yi wax ñu ne moto yi moto yi daw dafa bari déedéet moto yi daw dafa bari ñu ngi fi fekk Yaama Ndiaye joxe na complaint boobu loolu liggéey police yi la suma wax du bari foofu noonu waaye li ma bëgg a wax rek mooy ne euh, li war mooy ne na nit ñi génn si ñu xam ne lii defaluñ ko Yankuba Koli defaluñ ko keneen seen bopp lañ koo defal comme ni ma ko dee waxee rek ne soo xaar you know yoo bu war a naaw from point biñ nekk nii ba mu dem ba suma kër ah kon yoo boobu noonu dina garaaw de kon yoon boobu noonu ñëpp la amaata ci Gambia soo lii nekk sa lii lii oote bi mooy ne yoo ki sa boppa setal wéral loolu la setal wéral loolu wér gu yaram rek la oote oote oote oote bi du pour ne pour ne gis leen ma moo tax oote bi su fekkee dégga la dégga nañ président Jammeh su fekkee xam la xam nañ ko su fekkee jëfin la gis nañ jëfinam soo du moom moom mu ko wax pour ñun nii njobootam su ko defee ñu jóg ñu meeg soone xam nga wér nañ li is all about nga wér suñ wér gu yaram rek laa oote ci mbalit yi nii lu kat it léegi suma léborasi rek ñooy ñëw pour liggéey si it's, it's crazy, kan nga amati fii nii Jallow Jallow eh, cleansing service bi yooyu ay manager bi yooyu fekka nañ la ci too bi si bési set setal bii nii eh, ban jafe-jafe nga nga am boo xam ne moom nga ñoo wax ci wàlli mbalit bi because dafa mel ni mbalit bi génn yëpp ci biir kër yi lañ génn ndax ñooñu ñëpp dañ toog rek ne KMC moo leen war yóbbul seen mbalit bi leeralal ñu foofu naka la mbir mi war a defee eh, management yi mbalit naka la. waaw jërëjëf in fact sa question boobu leen foog naa ne mënuloo maa laaj question bu gën a important boobu nde biñ déclaré OCN bi Operation Clean the Nation waxuñ ne li pour KMC la dañ ne ku ci nekk na nga jéem a fexe naka la sa mbalit di eggee ci doom side bi so ku ci nekk danga war a organise sa gox o sa mbalit nga seet naka la moo eggee foofu waaye nit ñi midnight yenn yi ci lañoo ñoo génnee mbalit bi ñoo bàyyi ko ci Johnson bi dem so ñun ñi ñu dee dimbale yëpp bàyyi one o'clock ñoo ñëpp ñu dem mbalit bi volume bi na dee xaay bi nga xam ne ñun dañ de continuer yenn yi sax three days pour clear li nekk ci highway bi te lii du KMC show pour nation bi la ba pare façon mbalit yi ñu dee indi fii yenn yi loolu du domestic waste ba pare you know organic waste yi ñoo génnee ak necessity maalo yi xam nga soo na a point sa caméra bi fii nga gis sax yi niñ mel nii soo defee ni lii waratoon na ñëw fii nii because lii ay ndesiti maalo la ci ay plastique lifin bu weex bi you know lii ay ndesiti maalo la ay yeneen butit ak yu demee noonu moo dee moo dee mel ni waaye bu fekkee ne you know mbaliti eh, kër gi la rek ñoo bali rek loolu defe ne li xëy na du naxari pour handul so damaa ñaax public bi pour ñu xam ne you know is their own show lii ñoom ñoo ko moom nañ ko jéem a jëlal seen boppa ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci boor yi amee seen private vehicles So su waxtu bi jotee nañ contribute loolu su ñëwee council ñu dinañ leen fuel ba pare dinañ insoné am nañ ñoo xam ne dinañ mun a eb mbalit nii waaye ñoom seen boppa sax am na ci ñoo xam ne seen trop yaa ngi gis lii ngay door a egsi you know lii daf ñu dee gëteen léegi because on a normal circumstances dañoo clear benn place ba pare ñu dem the next minute nga romba fa nga fone jëluñ ko woon fekk am ñoo xam ne dañoo xaar ba ay 3 4 o'clock fekk clear nañ eh, an area ba pare ñu jéem koo indi and that is not nice mun a nga yow suba si comme que mënuloo koo yóbbu fële kay indi ko den su ñu boole ko ci li ñoo yóbbu waaye dañoo ñëw bés daal place bi yow nga door a ñëw you indi sa mbalit mu ñaawal suñ liggéey te mbalit you know ak you know pour jéem a toppatoo mbalit lu important la ci dundu doom aadama bi ba pare cet loolu moom mooy first thing li nga war a def sax pour mun a toppa yàlla nde ni ko meyo bi waxee fii nii yow soo fogee ne ah, meyo Yankuba Koli nga jëlal mbalit mi non non non yow sa boppa la because eh, meyo Yankuba Koli eh, yow fa ngaa jóor sa mbalit mi sa bunti kër o sa boppi ko meyo Yankuba la dëkkut foofu te xëy na moom area am dina en sonné loolu du am xëy na dafa nekkee tamit responsible nañ enof you know affaire bi yëpp dafa nekka loo xam ne nit ki da ngaa war am itte onasan nga nga xam ne lii suma warugal la maa ko war a def te doomi réew boo gis rek danga nga war a def li nga xam ne moo la war ci réew moom te fi mu nekk nii lii every month la dee am ba pare soo gisee mbalit mi ni nii lii ñaari weer you know set setal amul waaye bu fekkoon ne you know weer bu nekk comme ni mu daan demee ne ko noonu at least du doon meli nii. in fact ndax nit ñi dañ war a xaar ba set setal jot dañ war a mën seen mbalit bi. exactly ba pare li ci di irony is li ci gën a eh, doy waar mooy. you know dañoo ñëw da ngaa seet an empty bag of rice nga ne non da ngaa insist ne foog nga yóbbu ko te lii seet nga niñ ko loodee nii it's fine dem wàcce bi tam dina fine because suñ tracteur yi dañoo tip égal bi man power la offloading bi man power la léegi bu fekkee ne da ko tuur suuf ñu war ko buub dafaa jël moo time ba pare suñ ko ebee suñ demee fële tam dafaa jël more time pour offload soo boo ñu ko defalee nii pour offload saako yi mooy gën a wala nga gis ku insist ba pare su fekkee ne private man bi moo la ko yóbbul yaa ngi fay each bag five dollars for example like soo amee ten bags or soo amee five bags yaa ngi fay twenty five dollars all right léegi pour benn saako bi nga xam ne it or two dollars or yaa ngi free because moom moo ëmboon sa maalo bi nga koo jënda loolu